alors balaa may dem ci euh, loolu euh, ma terminer alors nan la ñu est-ce que li mu résultat yi mu am ban valeur médico-légale la am. il y aura un combat il y aura un combat juridique. non vous n'avez combat juridique. Ah. actuellement man wax naa ko dans une chaîne. nee mm. naa leen boo prélevé te huissier fekkewu ko. te digaluñ la ko. te amul euh, nu mu tudd comme ni ñu defoon certificat médical des viols là que ñu jox la réquisition. venant d'une force publique. Mm-hmm. Il faut après se battre pour le légaliser. ah il doit se battre pour le légaliser mais du duñu ko disqualifier d'office d'office non parce que produit déjà dañuy xam ban produit kan moo ko am droit yor Sénégal parce que am produit yoo xam ne tout le monde n'a pas le droit de l'avoir au Sénégal les produits toxiques sont sont vraiment mondialement euh, strictement codifiés et, et traçabilité incroyable mais est-ce qu'amul délit d'initié c'est-à-dire il y a pas eu réquisition euh, y a pas eu un agent euh, assermenté bu mën a attester euh, est-ce que yére bi la est-ce que c'est le produit mhm. euh, est-ce que loolu déjà du affaiblir Ah, la la la taille de l'accusation dépend de l'ambiance qui est là ku la man def déposé naa xaw ma ñaati plainte au Sénégal kenn topp ko man dans les événements là on a attaqué ma femme avec quelqu'un qui avait un 4 x devant la porté nañu plainte fii ci biir Wakam. Euh, a pas eu de on a pas de suite alors qu'il fallait juste euh, une une à la Sonatel pour savoir au moment où on l' est ce que le gars avait un téléphone parce que a le rapprochement de deux téléphones ça mhm. se voit. Mhm. c'est des choses très simples on n'a rien fait est-ce que c'est parce que. <laughs> non pour te dire que quand ambiance ou juridiction bi. dafa mhm. doy waar. mais mais bu euh, la kii def na appel d' les les dossiers combien de dossiers sont en cours. non xaaral xaaral docteur non parce que dossier yuy gaaw a jàll. non non docteur bu wax dossier juridique fast track. xaaral la seconde étape. waaw c'est l'aspect politique. dama bëgg le médecin le le le professionnel de santé que vous êtes. wax dans ce genre de situation. comment les choses devraient se passer. voilà madame je vous rappelle un peu. Euh, euh, Hissène euh, Hissène après là mhm. kan moo ko porte plainte bi ñu koy jugé au Sénégal. les familles des victimes au, au voilà. Tchad. les civils simples mhm. porte plainte fu ñu ko yóbbu. porte plainte fu ñu ko yóbbu. ces pays voilà mhm. ces pays xuma Genève. non c'était même pas c'était à Genève. parce que c'est la Genève c'est la Belgique qui a lancé un arrêt un arrêt de un. un mandat d'arrêt international. mais c'est quoi le rapport ak euh, li ñuy wax. ça veut dire que kii bu demee prouver ne que euh, dans une institution bu mën a def ay recherche mën a xam ne kii au Sénégal on a essayé de l'empoisonner euh, le mandat le mandat d'arrêt va partir. mais le traitement des habits le traitement. Euh, yi nga xam ne foofu la foofu la poison bi hmm. Euh, hmm. nekk. nee na livre yi c'est toujours disponible. au plan c'est trop disponible non. dans un laboratoire. non la question que je vous pose. mooy ah en tant que professionnel de hmm. santé. Oh. dans ce genre de situation. nan la ñu war a agir. man ban bu ma agiroon man damay oo benn huissier. qu'il soit influençable ou pas influençable parce que fii toll nga foo xam ne léegi dañ lay yóbbu ne la waxal li ñu war a wax wala lu ñu warul wax d'accord Donc c'est ce que les gens croient. Il, arrive avoir il a un doute dans la justice. Donc Sonko quand même est le premier intéressé à avoir dans la euh, justice que Zélimou Yaka magistrat tous les jours. Hmm? mais nga ne bu doon yow da woo un huissier. man damay woo huissier. Mhm. prélever devant lui ñu def ko sous scellé trois flacons. Mhm. Hmm? buy des Sénégal euh, peut-être ñaar yuy dem dans deux laboratoires différents d'accord. et ce huissier la va constater que tel jour jël naa yëre yi mu soloon que mu ngi tudd euh, euh, Sonko que à telle heure dans la clinique Souma def nañu tel prélèvement demandé par tel médecin d'accord prélèvement yooyu nu muy demee nag ça c'est ça va être aussi une suite mais qu'on soit être capable que demain que ce soit les mêmes vêtements que ce soit le même produit parce que foofu yëpp ñoom tamit bu ñu amee avocat bu baax loolu yëpp contestation bu dul jeex la d'accord mais nag gis nga à certains niveaux quand am na ambiance buy am day tumaal bi day gaaw parce que après bi ñu xamee ne y avait des choses là-bas bi mu ne kenn kenn fekkewul bi muy rey nit ñi mais il était responsable de politiquement de ce pays-là au moment où les les morts se sont faits euh, donc euh, moom la ñu mujjee tuumaal donc exemple boobu mën na la wane que s'il se bat bien il se peut que ñu topp ko mais c'est un combat quand que je pense qu'il va être très long. qui va être très long. ou perdu d'avance. pas Très long. Très ah, ah. donc euh, des chances que ñu mu mën a asseoir mën a asseoir la thèse de l'empoisonnement ouais, et puis même, la la aidé parce que état bu ñu nee empoisonnement bu mu commencé enquête mm-hmm. xam état bi déjà il s'est levé ah dana jàpp kenn ku ku sant si ku sotti woon xaw vinaigre donc l'état a bougé donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose tamit li yëngal <laughs> nag la buy waxee <laughs> li yëngal dara moo ko ëpp doole. <laughs> li yëngu li ko yëngal la ko ëpp doole. li yëngu li ko mais mais mais mais kii nu mu tudd euh, substance chimique. Mhm. yi mu yi mu cité. ne moom moo nekk ci produit bu ñu ko sotti. Mhm. yow ci sa œil de de de professionnel. Mhm. substance chimique yooyu li mu wax loolu lay créer. absolument boo jëlee benn livre de mën naa la envoyer la page de description on a un livre de toxicologie même ndox sax dañ la ko ciy décrire ndox sax dañ lay wax ne à dose lay rey nit. <laughs> et donc substance chimique yooyu mënoon na créer la mort. à quelle dose loolu yëpp il faut ñu xoolaat ko à quelle dose fa ban voie la jàll est que ci bët la jàll est-ce que ci bakkan la jàll wala ci biir la jàll mais apparemment c'est un produit de gaz euh, ci bët ak bakkan lay jàll.